Serigne Béthio waaw ndax tey lii yëpp bu amee soo mënee toog di ma poser ay question may tontu jëmm ji rekk la muy Serigne Béthio may ñaan yërmandem yàlla na gën a saawaan ci ñun ndax su dul woon moom buur man duma tekki dara barki Serigne Touba mu nekk sëriñ boo xam ne daa motub Serigne waaw Serigne bu motub Serigne day day jubóob taalibeem mon leen bëgg leen boot leen rogganti leen roof ci ñoom xam-xam te duñ dem ci daara ñun sëñ Béthio noonu lañ def def na ci ñun loo xam ne sunu waajur mënoon na xëy di fay ay ay sëriñ ñu ñuy jàngal waaye duñ ko xam waaye ndeysaan yéene bi rek la am si ñun roof ñu xam-xam ba lu nit wax ñu mën koo dégg suñ ko mënul tekki tamit mu mën a dugg ci suñu bopp kon euh, sëriñ Béthio kenn la ci man muy sama sëriñ ma nekk jëwriñam ca Touba sant yàlla bu Tiwaawoon Pël euh, mu fonk ma bu baax fa lay jaaree di nuyu Serigne Saliou Thioune euh, ndigal di ñaan ay ndamam yokk noonu lay nuyoo sama Serigne Seydina Saliou Thioune mu Serigne Béthio waaw bés boobu moom euh, comme ni mu ko waxee buur jour boobu daa mel ni asamaan moo wàcc sama kaw ngir naqar bi ma am ngir métit bi waaye euh, bi ma gëstoo séentu gis asamaan bi nga xam ne asamaan si sax ndeysaan daa wane ne sëñ Béthio dem na ndax ñu ngi gis ay bis ndox di ñëw asamaan bi changé seddaay ñëw ma ma ma ma ma gisaat ne lii sëriñ Saliou waxoon sëñ Béthio yow mbaa yàlla naa la loo am ak koo am ak koo àndal soo dee ma yóbbu la àjjana waaye eh, ma gis ne lii Serigne saali waxoon ñëwaat na ndax sëñ Béthio dem na ci weer boo xam ne du ñëpp ci mën a dem muy weeru koor benn fan ci weeru koor ñu tëj buntu safara yépp ubbi buntu ajana ma xam ne waxu Serigne saali boobu ñëwaat na. ndax waxu tolluwaay la eh, nit eh, sañ ngaa wax eh, am naa ko mën naa ko mënuma ko awuma ko waaye keneen mënu ko sañu ko loolu ma soo ko waxee juum nga lii sëriñ Saliou mon moom kese ko man te Serigne Saliou moo def sëñ Béthio nii mu ko def Serigne Saliou a yebbeeku ci sëñ Béthio def ko nii mu ko def jàmm rek lay am ndax bés boobu bariwaan na kuñ koy xaaree ndeysaan waaye dogal yi ci sëñ Béthio la wàcce waaw kon ñun sant nañ bu baax sëriñ Béthio euh, cant boo xam ne am na tàmbali waaye amul fi mu yem waaw ndax garab bu rëy bu daanoo waaw faw coow li bari sëriñ Béthio mel noonu di sëriñ Béthio nekk ci kaw jamono di nooy di dem di ñëw àdduna di riir di waxtaanee sëriñ Béthio waaye sëriñ Béthio lu mu déggul ci àdduna amul di sëriñ Béthio lu nekk dégg na ko waaye xam bi sëriñ Béthio xam ne moom loolu ay dogal la ci moom ndax yonent bi sallallahu alayhi wa ñun ñëpp ñu yaakaar ko eh, tey roy ay jikkoom kenn ku ne gisoon na ni yonent bi métit bu nekk nit teg na ko ko wax kàddu bu ñaaw bu ne nit teg na ko ko waaye yàlla rek fi nekk coow yi eh, ndeysaan am na ñoo xamante ne xam nga xamuñu xam nga ko xamul eh, ka xamul te man sama kàddu saa su ma koy wax jubluwu mu cee wax kenn koo xamante su ma waxee da koy gaañ te ndax loolu sëriñ bee ci yaree wuñ ko waaye eh, kenn ku ne xam na ne yoonu murit daa am ay sart am ay yoon am nu muy doxee ñun ca lañ nekk waaw ku nekk ci leneen nag ah yaa nga ca waaye cër daal bu ko sëriñ bee defee ci yow ba àddunay tukki du deñ waaye nangul sëriñ Saliou Thioune mooy tax fi nga bëgg a yegg nga yegg fa ndax fii réew yi ñu nekk eh, sunu mag ñu baax yee ko sànc mag ñu mag ñu baax ñii ko sanc kër goo ci dem fekk fa jigéen soxna boo xam ne afisu alxuraan la jàng na ba fu jàng yem waaye kenn mësul dégg ay darajaam ñu wane ko kenn mësul dégg muy wane fi mu toll waaye saa su nee nga gis ñoom ñuy ubbi ay daara di jàngale yoonu lislaam loolu jàngal jigéen waaw kon maa ngi woo ñëpp eh, eh, sëriñ Béthio lijjanti lépp ba lépp teguwaat ci yoon ndax sëriñ Béthio de mën na lu nekk ndax mbiram taxawul mu ngay dox ndax li ñuy topp Serigne Touba la Serigne Touba du jëmm buy buy buy dox Serigne Touba fii la nekk du fi mës a jóg waaw dañ koy topp te faw la fi nekk du fi bougé.